lu ñu wax loo xam ni ñun xamuñu ko en tant que nit suñu borom mi ko xam nag te mu sàkk ñu nañu tuub jéggalu du ñàkk tuub googee su amee ci mbooloo mi dina am ci kenn koo xam ni wala ñenn ñoo xam ni suñu borom rus na leen rus googee mooy tax mu wàccee lu ni mel jàngin jëf mu nekkoon seen cabinet Bio Rahma muy cabinet boo xam ni rek daanaka rek ñoo ngi tënkee cité Sëñ Mansour terminus 48 saa su ne lépp luy njariñ lu ne dinañ ci indi wax te wax ji ñuy indi dañ koy wax waxin woo xam ni. dafay tukkandiku ci xam-xam ngir suñ ña ca ñu nekkat li ñu wax ci téere sàngam lañ ko jële ci borom xam-xam sàngam moo ko bindoon ci at sàngam ngir may xel ki nga xam ne mooy seetaan nee naa lu baax baax na waaye ki koy jël na ànd ak ngëm gi gëm ni lii kat bu ko jëlee mu jariñ su boobaa suñu borom day accompagner mbir lu mu baax baax nit ki am xel ñaar xel ñaar gay tax mu yóbbu ko ca la mu bëggul muy li nga xam ne mooy contraire moo tax soo sentiree ne war ngaa ñàkku ji demal kenn du la forcer ndax kenn du ne kaay ñëw leen ñëw leen bu amee rek njeexital lay indi jafe boo sentiree ne war ngaa ñàkku ji demal su nawet jotee da ngay far di feebar yow bokk nga ci ña war a dem lu feebar bu am lu ne nga mu dal la yow bokk nga ci war a dem am na ñoo xam ne nag ñoom leer nañ leen bu ñu pikiruwul sax xam nañu seen bopp ndax ci at wi mën naa jeex ba benn yoon la ñuy feebar ñi nga xam ne ci at bi mën na ñëw feebar dix fois wala quinze fois ñooñee nañu dem ndax seen système immunitaire dafa di système bu oyof lay tax mu oyof nag mën naa doon ca la ñuy lekk ca la ñuy naan ca environnement ba ñuy nekk ba la ñuy sol ak yeneen yu ni mel jàngin jëf